bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallama tasliman àddina ndax day bëgg jeex am gaa yu baax yay bëgg a jeex am mbër yu ndaw yay bëgg a seex moo gaañ xam naka pexe ka xamle woon ak tarbiya ak xamoon ak tarbiya moo buñ demee ba surga ya ku leen di wax nag lay pexe ka woote woon ci àddina ba ñépp wuy see fadduna na njiima daddu àddina te jiima wuy ji mooy pexe Seex Bamba dem ci wam sasin Seex Ibra dem ci tam sasin moo ñi fi des ku ñuy dese yeenu murit na ka pexe ab seet du dem ba doom di Seex Ibra Faal mooy doom di keem moo rawi doom toppi waaj leen mooy pexe ab seet moroom yaay topp ma sëriñ murid yaay topp ma jimlee wàll seen poma te boppam yi ngeen di fexe Cheikh Ibra gëm nga landina moo tax mu dëdd àddina fekki na Bàmba sotti na wàcc na aljana yi texe mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wi ab murit de aw baraw pexem marit ba am ngërëm bari murit te duutu di tex texi mu dal di dem tey ba Dakar ngir dégg Bamba di fa xaar seet na sëriñ tey ba Dakar cim njàng lay xamay pexe mu tëdd guddi li si xaar ba seet mu xëy ba ti subaar sëriñ Matar Touré fa jaar leeram nga wan ko lay pexe Matar Touré nga joor yamu ko jom Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónni ko ci buur Cheikh Ibra topp cay fexe mu gis fa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram daldi di ca ngoy mu won ko Bamba mbër mu rëy sëriñ ba naa ko foo faxe mu wax ko tegtalee fa moom sëriñ ba wan ko la fa moom moo xam ni gis na ka moom mu daldi fab mbiram joxe mu soobu ba jiitu leen bamba ni kii app na leen leeram gu rëy war na leen fu mu toll xool bay nox-noxi wax na ni tuuti kon mu dem fekki sëriñ ba lambiram ba kenn du jot ci baatinam lu dul ca bis ba ñuy texe jaarama seexi ibra faal lamp bi seexi bamba leeral nga réew mi yaa kamaal yal na nga dolli birexe ba mu ñëwee mbàkke kajoor fekk na daara ja di soor moo njëkk yalwaani di wër ñu di ko ree di tex-texi yendoo liggéey fanaane root gaaye xaran ba xureet baluy ganaar di kurkureet moo fa xewal daawul doxi moo fa xewal ni yoo moo nu tereew yooti fekkoon na ñuy jàng fa maam moom mi muriitu di fexe fekk na daara ja di riir moo dindi àllarbaak di beer lu Bàmba wax mu dal di buur lu masa am dal joxe moo fa xewal soli sakar moo fa xewal sa xoo sikar moo fa xewal sa xalkawar daaw fa bay di rax ba mu ñëwee Mbàkke Bawal daf ne na waa kër gi bawal naay soq di root di wal boo leeg liggéey du ko joxe lu Bàmba wax mu dal naaw foore juróy ja sant saaw naan ko dangay ngay dellu gannaaw jàngil muriitu dum pexe mboolem murit yi di ko soow mu mel ni dof bu mat a yeew ba mujj far ñëpp nu siiw meloom ya far di ko doxe mu jiitu far amul moroom far gani bokk gani doom jaaraama jaaraama xaddiim wàcc na wàccaaleeg texe yow mosulaa juyoog ndigal naka nga joog ta nga ndogal ko aw sambar duñ ko mbugal garme yaa tax ñuy texe yaa jëkk jébbule sa xol fekkoon na gaayee xorxoral ña lay satal ña lay naxal yaa wane ngir min daan doxe yaa ba yaa xereñ daaw werante kab sëriñ mbàjjo bi yaa bari njëriñ waane yàgg na naxe am ngay ngërëm ba am dërëm fab say dërëm jënday ngërëm loo masa am tabal këram ay junni daal nga daan joxe joxe nga addiyey gëleem yu safi ngur du safi koom soldaar sa yaa joxe sa doom faddilu faal am nag texe sa ndaw da daa dem ba gabong di yóbbu ay saako yorong di war ca gaale ya yori bong doo denc lëf ba muy maxe moo tax nga mel ni ak saxaar ku nar dem dana fa jaar kuy ñaani paas na seeti gaar bu mu nekk ba pexe ndegam danga xeebit sa woy wata yaa nga fa gaaraas seetalam wax jiiti xiyaas ndegam danga am looy joxe bàyyi saxaar doom jey wata koy xamle yàlla du fiita ku ji àndaar goob cay mata jëxel ci taw buy bex-bexi Cheikh Bamba taawloo Moustapha Cheikh Ibra taawloo Moustapha diggante Marwa taak Safa kuy aji war na faa doxe Cheikh Bamba am nam fàddilu Cheikh Ibra am na faale fàddilu kon ak muccam du toraxi Cheikh Bamba bég lenam basiir Cheikh Ibra bég lenam basiir ndab loo dem lekk ba suur ma kay toggi joxe Cheikh Bamba am nam Abdoulaye Cheikh Ibra am nam Abdoulaye Abdou mu nekk mat na waay bul wedd ceebu kaay texe yal nañu aw seen tànki baay ba mujj doon seeni baay ba mujj boole seeni gaay amiin ndax ñëpp texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lëm masa aajo faju na ba xëy na ñi bi àjjana nan farlu ay andi pexe kenn mës la gis sosam wu booy du daw ka koy musloo ka moo jara way te jara jooy cay àddina manan naxe diglul malim fi ay ndamam bagaa yi doole xam mbiram yi bég ba dellu gëm léegi ragal yi yox yoxi jaaraama ndey say na bu njaay la soxna jaara yor di jaay yaa ko musal waa njaara njaay saw nga ñi na yaa texe diggante jukkeeg jamatil lañ daa dajay naa buteel yaa tax ñu jébbalu ca teel fal njaga yaaray pexe mbula ki sax aki sukeer dañ daa daje foli buur yaa tax ba diine di fa toxal nga poon man daan tuxe mbula ki sax xaki sungeer dañ daa dajeeka solifuur yaa tax ba diine di fa leer toxal nga poon mañ daan toxe doomi dameel ya fi ne woon yaa damu mbir mañu ne woon tey ñëpp ñëpp a fi nun kenn amatul muy fexe yaa yóbbu mbaaxaan ca xafoor yaa tax ba xol ba dutu fuur yaa tax mu sànni yatu nguur fop yatu gëm de laaj pexe te xam ni mos yor junjung fu mu gewel yana kundung ma xas di bàkko ci korong mu yamaak ñun ay pexe yaa tax ba abdoulaye xaar taxaw fa bunto fa xaar wayaf lu bay lekk daqaar ngir sopp bamba mi joxe te ni moo doomi buur lum masa wax ñu dal di buur la dale mbaakol ba kajoor moo ame woon seeni pexe yaa tax ba soxna penda faal ak gancire ki laala faal gën soxna yi fi taal diine jurey ji ñuy doxe te xam ni seeni baaya moom fi ba taalagul kanum ko masa ay jamanoom xolam ba daawal yox yoxi yaa tax ba Abdoulaye Njaxib lam ndigal far na ko lagaaye giiro moo ca xab tabax na ay kër di joxe te xam ni mas na fi moom te ji mu mat sëkk borom ka denci doomam dib gorom lii doy na xar baax doy pexe Cheikh Ibra Fall amul morom sàkk na mbër yu roy ci moom leeral na penkoom ak sawoom lu yàqu dootu ñox-ñoxi la dale ndar ba ca Dakar jàll gannaaw yoonu saxaar mbër mu fi roy bañ naan la kaar Cheikh Ibra lay laaji pexe ndar la doomi jaaramay leeral na a jaara tey waykat wa sàmba jaara may moo tax danam bay bex-bexi mu jóg fa aksi ndand faal jàpp fa doomi ngoone faal def ko ni làmp bu ñu taal tey ngin ngi neew moo fay fexe leeram nga sar ba aksi kees ku ñëw mu duy la ba nga fees luy nit ku ñuul ak nit ku xees ñeppay ba woo fa ngaay mexe sëriñ ba ñëw jurbel mu ñëw gàddaay këram yaa te du daw guddeeg bëccëg ñam ya di ñëw ba Bàmba xëy sakim pexe mboolem murit yëpp gëlëm kenn xamatul kuy sëriñam ku ni ni ngeeja dal di dem addina sëpp jax-jaxi mu dal ngoy ci Mustapha ngir xam ne yor na listifa mag dem moom mu ne mus la toxoo ka yox yoxi ba xëy na wuy ji ab sangam Tuubaa la tooke woon ajam Bamba ko jiiteloo ñoñam diggante bépp gaag guy texe ma ngay janook tooli dërëm meññit ma gën junni dërëm gis na lu weesoo mebetam am na lu raw lam doon fexe bamba xaroo na koy ngaram ridwaan tijjil na koy këram ñoorul ay ning fa wetam gis na lu raw lam doon fexe ngaram la yonen bay garam ababakar ma njëkka gam la say xu bamba di garam seex ibra mooy njëkka texe mi daay ba yonen bay takkal Ababakar ngirug dëggal la Seexu Bamba di takal Seex Ibra Faal bisub texe mantu ba yonen bay solel Ababakar yor parisol jasaade xëy na ya tofal yal na ko Seex Bambay joxe musaala way wi wala fal yal na ko Seexe Bamba ful te boole gaayu dëggal yoo xam ne kenn yox yoxi musaa la way fal yal na ko say xee bamba ful te boole gaayu dëggal yoo xam ne kenn yox yoxi